عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النشير assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokk yi ni seetaan na ci biir réew mi ak ci bitim réew yéen ñépp ñu ngi leen di ziar te di ñaan yal na nu yàlla may nu yendoo jàmm ñun ñépp te fanaane ko di leen ziar ci weeru kooru màgg wi nga xam ni ci lañu nekk di ziar suñu kilifay diine yi di leen ñaanal ndono bu rëy bi nga xam ni moom lañu ñu donn yal leen ko yàlla sàmmal ba dara du ci yàqu di ñaanal ñi nga xamante ni ñooy kilifay aada yi te mënul ñàkk li ko tàmbalee ci son excellence la président de la république Macky Sall ba ci ki gën a suufe ci gouvernement bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal projet yi ak mébét yi ak yéene yi ci réew mi lépp lu ci baax ci réew mi yàlla na ko yàlla sottal bi jaay yi sey seydil wujoot di ñaanal ñi nga xam ne dañu feebar yàlla na ñu jóg ak jàmm ak salaam di ñaanal aussi ñi nga xam ne dañu juum dem kaso bu ñu génnee yàlla bu ñu defati lu leen fay delloo parce que liberté moom dara dàq ko nag ci àdduna di ñaanal suñu bokki sénégalais yi nekk bitim réew te continent boo dem tabar fa kàll fekk leen fa ñu ngi leen di ñaanal li leen tax a jóg yal na ko yàlla yombal parce que tukki dafa metti xam naa ne li ngeen di daj moom ñi génnul xamuñu ko waaye ñi génn moom xam nañ ni sonn ngeen waaye yàlla bu seen coono réer yàlla na ngeen ñibbisi te bu kenn manqué te ngeen am xéewal te it nag ñu jéem a nag ñun ñëpp nag fas yéene toog ci réew mi nag pour defar suñu réew parce que nag ah réew mi bu ñu demee nun ñëpp bàyyi koo ki gan <laughs> bu yàggee dinañu am lu nu ci rëccu di leen ziyaar yéen ñëpp di leen ñaanal di ñaan jàmm nag ci réew mi di jàmm ci réew mi parce que réew mi tabar fakàlla allah xëy na ñi génnul Sénégal dox yi ñooy wax waaye ñi dem bitim réew dem ci réew ñoom da boo bu ñu ñëwee Sénégal dañuy mel ni ku nekk àjjana ndax li fi yàlla def amul ci benn réew jàmm ji am fii tabarkàlla yàlla na ko yàlla yokk ak li nga xam ni moo fi nekk ci stabilité nga xam ni réew mi réew yëpp am nañ ay coup d'état lu ne ba mu des Sénégal waaye boo nee ci réew mi léeg-léeg ngay dégg gaa yoo xam ni dafa mel ni réew mi day bëgg a tàkk te dara nag tàkku fi dara amu fi lu dul jàmm ak salaam waaw désordre bi nag a ah, moo bari rek ak bàyyi lu la neex def bi xam nga nag nit bu fekkente ni ah, parce que nguur bu amul yar <laughs> dama ko yàgg a wax gaa naa ma dictateur nga déedéet nguur bu dul duma matul nguur waaw nguur moom. boo defee loo wërta def dañ la war a contraindre dafa war di sévir parce que c'est important parce que boo génnee ci mbedd Sénégal yi léegi li ngay gis yow dafay mel ni da nekk ci àll boo xam ne ay golo ak i mbaam ak yooyu ñoo fa dëkk parce que désordre bi ni mu mel ci réew mi actuellement ëpp na dayo nag wax dëgg yàlla mat naa jóg te yi ñuy wax yépp xëy na ñor na waaye bii nag moo ci gën a ñor dëkk boo xamante ni fépp fu ñu defoon trottoir pour doomu aadama yi di fa jaar bàyyee tali bi ak oto yi léegi boo fa demee dañ faa teg fourneau di ko upp di fa def ca defar caaf ñii teg fa ay taabal ñii lal fa di jaay te koo laal marchandise am mu saaga la ndey désordre boobu xanaa état amul wala amu leen ku leen di xoolal mbedd yi wala da ngeen a ñemewuta laal nit ñi parce que saa yu ngeen defee ordre ci réew mi bale mbedd yi ba mu set su leen téeméer mere junni gërëm leen te état ku ko bëgg a defar doo ragal faut pas avoir peur de mettre de l'ordre ordre dafa war a am ci réew mi xoolal bi nga xamante ni batolo Joola amoon na fi ñu aaye oto yi kenn dootu lang ci marche pied léegi da ngay gis benn njaganjaay bu la romb vingt personnes lang ca ginnaaw di romb police di romb gendarmerie mais ci ban réew lañu nekk nous sommes dans quel pays ban réew moo nangu loolu te amul fenn nag en Afrique fu dul Sénégal vingt personnes ci marche pied ñii yéeg ca kaw mais Sénégal li fi am kenn gisul lii ah, réew moo xamante ni kenn amatul foo jaar lépp lal nañu ko lépp lal nañu ko xam nga furno nga di ko teg ci trottoir foo xam ni piéton moo fa war a jaar ngay upp di di di saaf sa gerte di jaay te sax dëkku fi far ki koy def sax il ne dëkkul sax Sénégal ñëw desorde bi bépp ñu indi ko suñ réew xool leen puus puus yi kenn amatul foo jaar ci suñ tali yi mel ni danoo ragal wala dañ koo tëyut parce que lii boo koy seet nag damaa defe ne dañ koo tëyut parce que ñëw yàq sam réew comme ça ngay seetaan quoi sa désordre la mais quand dañoo war a dañoo war a defar réew mi xool leen xale yi ci mbedd mi bu ñuy dox madame Saara ngi ma naan bul wax bul wax <laughs> la ca des <laughs> du ma ko wax parce que yaa ma ko tere waaye wax dëgg yàlla ni ñuy def ci mbedd mi nga xam ne daanaka sa sa sa xawra yépp mi ngi ci biti en tant que góor xëcc sa tubay ba ci sa digg xottu xottu yooya waaw li madame Sarr di bañ ma tudd ko ah mais ñëpp xam nañ li ma bëgg a wax mais ñooñu dañ leen a war a duma ñu ba loolu ñuy def dañ leen a war a duma parce que góor gu xëcc tubéyam ba ci diggu xottu kiyam dégg nga di dox booy dox sax mënoo dox mais xaleel la peut-être xamul li muy def mais euh, yoon moo ko war a teg ciw yoon su laajee mu duma mu duma ko parce que réew mu dul duma loo tëj doo xëblaate moomu réew du am ordre mukk ci àdduna Sénégal nag loola neex defal parce que lii dafa mel ni tëyatuñu ko nag ay góor yuy def baan daanaka yaramu neen ci mbedd yi waaw nga xam ni pour ñu doon góor jigéen lu yomba yomb la ndax góor moom bu mënee génne awraam ci biti genn wàllu awraam nekk ci biti muy dox ci mbedd yi di ngañang ngañang yi noonu ñuy doxe kooku moom pour mu nekk góor jigéen lu facile lay doon parce que il a un pas euh, déjà ci biir ndax awra awra moom ku mën a génn sa awra di dox ci mbedd amatoo benn jom waaye nguur gi ngeen dimbali ñu ku jaarul ci yoon ngeen teg ko ci yoon bu laajee sax ngeen duma ngeen duma parce que buur buur bu fekkee du duma matul buur de waaw buur moom bu fekkee te ni baadoolo mook baadoolaa yem boobu boobu ngóor dootu ngóor Sénégal dañu war a def teg yëf yi ci ordre ci lépp nag ci lépp ci rajo yi ci tele yi ci mbedd mi ci doxin yi tout est désordonné pour lan mel ni réew mi dafa amul ay doom mel ni Sénégal ñi ko yor dañ koo bëggul ba bàyyi nit ñi ñuy def lu leen neex marchepied pour teg sa tànk yéeg la du pour voyager ay vingt personnes ci ginnaaw Njaga Njaay bu ne di romb police di romb gendarmerie ñépp xam nañ li waral loolu te kenn mënu ko dindi dafa mel dañ koo tëyatu boo génnee ci réew yi Afrique yi Sénégal képp ngay ñëw gis loolu xool leen suñ territoire yi fenn fu doomu aadama jaar amatu fi taabal lañ fay teg wala furno wala ñu lal fa te boo ko nee lii mun la demal sa yoon te nag maire yi ñoo ko encouragé parce que ñoom ñoo li xëy di leen laaj juuti ku fe koo fekk mu toog fi nit ñi war a jaar kay bala bul ko laajub juuti marchandise am nga war a ramasse yóbbu bëgg nanum njaay bëgg nan ngeen am dara waaye teg leen ko ciw yoon mais jël sunu mbedd yi fattuñu fi mu ne Sénégal non mais Sénégal daal Sénégal est orphelin Sénégal daal mel na ni amul doom parce que réew mu am doom kenn du ko bàyyi muy mel nii waaw fi ñu defaroon kay wax dëgg yàlla pour nit ñi di fi jaar du ngeen ko bàyyi boog nit ñi di fi jaar ngeen teg koy taabal di fa tegi fourneau di fa upp hmm? te genn wàll gi dëkkuñu Sénégal sax fan ñëw fattuñu mais lii kenn xamul lu muy nuru ci rajo yi ci télé yi dañuy seet koo xam ni xamul dara li muy wax dara amu ci njariñ mais ñooñ ñooy wax Sénégal daal dafa mel ni ñun désordre lañ bëgg lu tekkiwul dara lañ soxla du ñu woo mukk boroom xam-xam yi ñi am xel mu rafet di wax lu baax ci réew mi kenn du leen invité ñiy xuloo ka saagantee ka waxante lu bon ak génne mbuuti jaambur ñooñu rekk ñooy wax ci rajo yeeg télé yi ça mal mel ni ñun donnuñu ñu baax ñu nu ñu nu fi fekkoon ban maam ngeen déggoon muy wax lu bon ay moroomam mais yéen ay sagari nit rek ngeen di éviter waaw di leen wax loo yu kenn xamul lu amul benn njariñ ci réew mi réew mi am na ay boroomi xam-xam am na nit ñu baax am na ñu jàng ba am am na ñoo xam ne seenum xelum kese mën naa defar réew mi waaye du ngeen woo ñooñu ay politiciens ñooñu nga xam ne amatuñu benn valeur bu ñu àndeek ma sàmba bu subaa ñu ànd ak demba bu ginnaaw subaa ñu ànd ak booba bu ginnaawaati subaa ñu ànd ak seexu ànduñoo kenn la sëñ bay jaxat doon wax rek koo xam ni boo yoree mu ànd ak yow boo ñàkkee mu bala ku ko am amoo xarit ku ko ñàkk ñàkkoo xarit mais sagari nit yooyu nag moom la média yi soxla man damaa xamut lii lan la lan moo tax Sénégal du ngeen woo nit ñu baax ñu am xam-xam ñu xam li baax ci réew mi ñu wax ko ci télé yi ak rajo yi xanaa ngeen di woo kat yeeg taasukat yeeg euh, euh, léebukat yeeg saagakat yeeg loo xam ni amul benn njariñ ci réew mi mais c'est grave mais lan moo xew lan moo xew am yéen ñi nga xam ni yéen a jiitu yor réew mi yor ministère de l'intérieur yor force forces armées yor lépp war a mën a imposer ordre ngeen lànk ni du ngeen ko def xanaa yéen policiers yi ro gars yi rombu ñu leen ci mbedd yi kaar yi def ay vingt personnes ci seen marche pied romb nañ leen wala rombu ñu leen yow gendarme bi xanaa rombu ñu la doo wàcce clients yi yëpp fourrière oto bi Sénégal duma rek moo koy faj duma du leneen lii ma gis nii aw il faut bu yar bokk ci parce que nag c'est trop trop c'est trop waaw daa mel ni dañuy defal promotion les médiocres ku xam lu bon mën a wax lu bon mën a xuloo mën a saaga mën a weer ay nit mën a yàq ay der ñooñu ñoom la ñuy yóbbu ci rajo yeeg tele yi waaye ñiy wax lu baax kenn du leen gis kenn du leen gis waaw ñépp jaaxle parce que lii kenn mësu ko gis réew moo xamante ni ñi fi nekk ay boroomi xel lañu xëy xëy bëgg a bàyyi seen njaboot rek ñu yàqu ni taal seen réew ci zéro bu ñuy wax sax boo nekkee bi léeg-léeg benn waaye woola bitim réew ni ma mais Sénégal lu fa xew parce que day yaakaar ni mu ngi bëgg a tàkk waaw koo xam ni ab robinom dafa panne deux jours sax dangay gis ci ci télé bi mu naan damay taal sans bopp ak euh, sunu bakkan lan ci teg mas ngaa gis lu dul paan ab satu doo bu panne kay doo xaar ñu defar ko ah. mais quand même salaamaaleykum. Ah, waaw waaleykum salaam. sëriñ bi noo tudd foo nay woowee. Xaadim Diouf. toujours gël tàppe. bisimilah sëriñ Xaadim. waaw man ma man maa lay wooye patriote. waaw. Euh, waaw ndax li ngay wax. Euh, ñu bari dañ koo waxul. Mhm. te lu ñu war a wax la. Mhm. xam nga démb woon naa la. Mhm. waaye tey jii li tax ma war la man man yow rek laay woo de man yeneen télé yi aw ma ci soxla. parce que am na ci yoo xam ne moom dafa amul njëriñ. jërëjëf jërëjëf. waaw ci li ñu am njëriñ la ñu war a wax yow li ñu jëriñ réew mi rek ngay wax. ndax ñoo ñooñu ngay wax. ne dëkkuñu fi xam nañ fi ñu dëkk xam nga ko xam naa ko. waaw waaw. waaye seen réew barki de moo njaay lañ fa dañoo dax ay burkina be xam nga liñ naan ay orpailleurs. waaw. dañ leen a ramassé génn leen réew ma yóbbu leen seen delloo leen seen réew mais Sénégal moom amuñu fulla. amuñu fulla kay. amuñu fulla. amuñu fulla amuñu fayda. wallaahi dëgg la. Sénégal moom naturellement ñi ci bari am nañ fit. waaw. xam nga am nañ jom. Hmm. mais fulla amuñu ko amuñu fulla amuñu fay la. amuñu fulla kay ah lii dafa métti sax waaw ndax réew boo amee fulla doo am na yoo xam ne doo seeraan waxuma la sa waa réew sax waaye ku jóge ci àll ba xam ne dëkku fi. Hmm. ñëw li ci def lu ko neex. moom Sénégal dong la am amul Sénégal. man xam nga yaa ngi li ma dem à l'étranger moo tax lu bari ma comprendre xam nga boo génnuloo fi doo xam lu bari. mais boo génnee ba gis nekk ci ah. ba ñëwaat. <laughs> di nga xam ne da waaru ci yàlla sa waaru ci yàlla kay voilà voilà. réew yëpp a jëm seen réew ba mu des sénégalais yi. dëgg la dëgg la dëgg la. ci côté yëpp nag ci kaw ba ci nag. dëgg la dëgg la. waaw junj doy na borom war a jërëjëf Diouf. waaw baam taal. jërëjëf Diouf léegi lu nga wax am na solo. am fulla baax na am fayda baax na ñaar yooyu moom ku ko ku am nga problème. waaw wax dëgg yàlla Sénégal rek moo mel nii. waaw mais yeneen réew yi melul nii doo fa gis yii waaw boo demee Ghana par exemple Ghana mbuusum perméable doo ko gis ci mbedd yi sénégalais yi ku naan ndox ba pare rek sànni biir oto yi kopp kopp à nga sànni maanaam kooku moo lay won ni bëggul réewam parce que ni ngay toppatoo sa biir néeg noonu nga war a toppatoo mbeddum réew mi waaye soo nekkul patriote doo bëgg réew mi xanaa xamoo ni am réew bu ma doon bu ma sañoon ku ko bëggul sax doo fa juddoo doo fa dëkk waaw te ñun ñi nu gën a def lu bon nag dañ noo far bañ te te lu ne dañ koy am ci noonu mais bëgguñu nu sax a far teg bët ba pare boole kooku yaree di ko nag goo xamante ni dangay gis kuy def lu ko neex ci réew mi te dëkku fi ba pare yaree di ko nag bañ waa senegal teg ci mais ñàkk fayda moo tax ñu ñu yab nu ah ñàkk fayda moo tax ñu yab ñu mais ñu am fulla boo nekkee seen réew am na yooyu boo koy def ñu dugal la ci wat a génn ñoo yey ah salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ bi. waaw noo tudd ak foo man madame Fall laa tudd maa lay wooyee woote wooyee Pikine. usine. waaw bisimilah waaw dama lay dama lay jàppale rek li ngay li ñuy jàppale nii. Mm-hmm. parce que mbedd bi. Mm-hmm. doy na waar doy na waar. Mm-hmm. man barke démb dama jaar kolobaan dama jom gis nga jaaykati màdd yi ci kaw trottoir bi lañ lal. xam nga loolu tam nit ñi ñun ci suñu bopp ñun ñoo bëggul lu baax. waaw ndax eh, bu newoon ne bu ñu fa lalee kenn bu jënd bàyyi leen boo bëggee jënd nga dem syndicat wala nga dem marché. man dinañ laal seen bagage yi dem. Mhm. mais dañu am kenn am amu foo jaar ci euh, jaaykat yi daal yi c'est la même chose. ci mhm. kaw trottoir yi la ñuy lal. Mhm. jaaykat yi nangu yi. mais euh, euh, kuy jàpp ci kaw tal ngay jàpp. pour affaire jàpp itam nit ñi communes yi war nañ dimbale nit ñi utal leen ay robine yoo xam ne wala douche yoo xam ne dañ fa mun a dem même bu ñu joxee juróom dërëm jàpp ñu jàpp mais kaw tal yi du jàpp kaay mais réew mi doy na waar sëñ bi day na waar waaw oto oto yi ngay wax tam ni ñu chargé nit ñi ñoo bëggul seen bopp ndax bés bu accident amee euh, euh, euh, assurance mhm. dafa am nombre de personnes yi muy jël en charge mhm. ah mhm. su nekkee ne yow yaa ngi dem nangu dugg ñu ñu def la surcharge bu après buñ la boo defee accident yi tey la nga nekk fu nekk nga nekk di wax il faut tam comme sa émission bi ngay def nii mu bëri ci réew mi ñuy yeen nit ñi di leen xamal seen droit ak seen devoir waaw maa ngi jégalu nag wax ji euh, vraiment euh, dama jaaxle daal. ah ñëpp a jaaxle euh, mais nag mais nag wax dëgg yàlla soxna si jërëjëf waaye faute bi nag moom. Mm. kenn nag gàdduwu ko ku dul état bi personne. waaw état bi moom moom képp daal jàppale waaye nit bi daal moo yor moo yor doole yi fekk lu teguwul ci yoon mu dindi ko par force état boobu nag moo irresponsable ngeen baal ma nag yéen waa état bi waaye wax dëgg yàlla li ngeen di seetaan képp ku nekk ci état loolu waru la désordre il faut nga nga nga metre fa ordre te loolu par force la war a doon ñun faluñu leen pour ngeen bàyyi suñu réew mi ñëw bëgg koo yàq nii rek comme ça yàq sunum réew foo dangay dem ci tali fekk ñaar fukki puus puus ñu tegale leen tali bi doo am foo jaar nga gis ay oto yu taxaw 30 minutes mënuñoo jàll ndax ab puus puus ci sa réew réew mu silvisé ba pare ngeen di ko xool di ko gis parce que yéen ak ñu ne yem ah, da ngeen di jaar yi ñuy jaar ci mbedd yi. waaw yéen a ngi koy gis xëy na Sénégal ngeen bëggul mais bu ngeen bëggoon réew mi loolu dañ na bu yàgg pourquoi pa te yéen bu bu leen ci téeméer meree ñaar fukki junni bëgg leen ci parce que sénégalais ñu civilisé lañu ñi ko bëgg a yàq nag bariwuñu waaye ñu ngi ñuy ñu ngi ñuy fàttawaay salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si noo tudd foo ne woowee. waaw damay leb tur bi. lebal naa la bisimilah. waaw voilà man nag maa ngi doog oote si télé. waaw. ndaxte émission bi ñu wax affaire réalité yi manqué doogu gis. Mhm. voilà mu nekk émission boo xam ne soxal na ñëpp. Mhm. voilà man nag du ma def nga yow tamit loolu may. Mhm. ngay invité. nit yu baax ñi. ku sax ñu mën a wax. waaw parce que man dama d'accord ak yow li nga ci wax sànq. waaw man ma doon génn mais dama dama jaaxle ba toogaat di la déglu. waaw parce que yow réalité sénégalaise yi moom ngay wax noonu. état dafa wuti responsabilité am ci lu bare. waaw man mag yi sax léegi ñu ngi ragal pour suba euh, devenir wu xale yi ñu ngi nekk dans la quarantaine aussi ñu ngi tiit waaw Sénégal dafa nekk benn pays boo xam ne ñëpp a jaaxle jigéen góor mag ak ndaw ñu bëgg Sénégal laa wax ñu gëm yàlla fas ni bàyyi fi dara pour xale yi ñu ñii di jàngale ñoo gën a jaaxle ñu nekk ci hôpitaux yi jaaxle ndax maladie mais dafa mel ni Sénégal nit yi. Mhm. y' a un problème bi mënatuñu ko comprendre. Mhm. waaw sociologue yi xaw ma ñëw wax def diagnostic gu. Mhm. maladie wu Sénégal. dañu bàyyi suñu valeur. bàyyi suñu culture. bàyyi suñu pas-pas. bàyyi suñu yéene. maanaam bàyyi bàyyi yëpp ba wax ñu ne ay jullit lañ. ba bari ñu ne yërmande fii la amee. après ñu ne mbokk fii la amee. après ñu ne famille fii la amee. mais yëpp am njariñam. man gisuma ko. ñu bëri gisatuñu ko. yow mhm. nag yaa ngi wax loo xam ni ay émission émission émission émission émission moo koy réglé. war naa mhm. ma j'appelle à ce que nit yi di la déglu. Mhm. macha allah. ñu bàyyi la bañ la dégloo xol. te ñu la dégloo xel. parce que déglu nit yu baax yi ak xel dafa jot. parce que lii ngay wax loolu nit di wax seen kër te kenn sañu ko wax ci télé yi. kenn sañu ko wax même ñu nekk ci nguur gi soo gisee à seen kër yi. li ngay wax la ñuy wax. ñu nekk ci nguur bi lii ngay wax la ñuy wax en aparté. Mhm. waaw vraiment bëgg naa Sénégal maa ngi ñaan pour Sénégal loo ak xel. Mhm. ñu xool naka la ñuy améliorer émission bi. Mhm. ñu lay bàyyi ngi invité la société civile. ñi nga xam ne politique ñu. comme ça ñu ñu mën a wax xëy na ñoom bu ñu waxee. état bi dégg leen. waaw maa ngi jégalu daal mais vraiment. ma mhm. bëgg naa jël sax sa numéro ci suuf. waaw jëlal ci suuf pour waxtaan boo boo coupé ñu jox la ko incha allah. waaw du ma coupé incha allah. jërëjëf waaye wax nga dëgg soxna si parce que lii nag fi mu ne ñëpp a jaaxle. ñëpp a jaaxle parce que euh, réew bu fekkente ni dañu dem a dem a dem ba maanaam mu mel ni làmbi golo xam nga bu dee àll bi la ay golo ak i jaar ak i kaña ak i mbott ak yooyu ñoo fay dëkk foofu moom c'est la jungle ku man sa moroom duma ku man sa moroom lekk. mais ñun ay nit lañu mais bu nu demee bay comporté wu comme ay ay ay mala parce que Sénégal comportement yi am ci mbedd mi moog yooyu mala sorewul parce que mala moom day day dem àll ba ba noppi tëdd ca ñun loo léegi loolu la ñuy def li suñu réew mi yàqu na yàq enfin lu ci bari yàqu na yal na ko yàlla dëpp nag waaw parce que li ko def lépp moo di euh, léegi sax xale yi faratuñu jàng waaw ñu jàng ndax bu njëkk wax dëgg yàlla ni ñu daan mooñe nit bu fekkonte ni dañoo continuer loola ba tey jii dara du fi yàqu ndax gone bu la sa baay masaana jur ba nga am ñett ba ñeenti at dalay yóbbu daara yóbbu la ci sëriñ bu baax boo xëy wutul xaalis ci dongo yorul ay walisam ànd ak dongo ya dem ca taax ya ma nga ca wilaasam ba mu dëkk boo xëyee jàng fajar nga jàng suba teel nga dem tool ñooñu lañ daan defare doomu aadama léegi nag loola dex jeex na xaaral ma jël kii ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa waaw sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. man de sa xarit la maa ngi tudd Assane Thiam. waaw. nekk seen consultant basket mag Arama Kandé. ah wax nga dëgg Assane naam Thiam. <laughs> ki ngeen di wax les chaises arrivent. <laughs> sëñ bi tey dama kontaan trop seen émission bi. jërëjëf Thiam. ndaxte yaakamti woon naa trop. Mhm. ay ati ata ngi ma bëgg déglu émission bi mel ni fu ma dugg wax ci. dëgg la. man nekkoon naa fi président wu délégation spéciale bu Pikine Est. Mm-hmm. ma remplacé woon Ndiaga Thiam délégation spéciale bu Ablaye Wade ba. Mm-hmm. mais gis nga sëñ bi ba demee Pikine Est. Mm-hmm. tali iko tax boobu. lépp doon camion. ak jaaykatu gerte ak caaf yooyu ngay wax. man ndeguma woon état nag man maa doon état d' abord. voilà exactement. demuma ci préfet demuma dama dem commissariat. <coughs> jël alkaati laa la wax ñu de ma nag. président Dóor mu daanu. lépp doon camion maa ko fa dindi woon. waaw kay. porte yi daanu woon yëpp ñu réglé ko. Mhm. képp ku fa nekkoon tabax ay seen fleur yooyu di ko indi ba ci accotement bi dépassé accotement bi dem ci trottoir yi ma dindi mhm. léegi nag ci benn banlieue bu ma ko tudd parce que dama bañ a tooñ maire ba fa ne. Mhm. mais c'est de l'anarchie totale. yi. ñooy gaare ci kaw trottoir bi. di leen jox ñuy lekk trottoir bi salté. man temps yi passé dama dem ba ca mairie bi. res woo dem ci responsable ki ko yore pour dindi occupation voie publique yeeg charrette yooyu. mënuma dinaa ñëw. mais deux jours après ma jaaraat charrette bi encore taxawaat foofu. ma dem ci borom charrette bi waxtaan ak ñoom. ci njëkk ak teraanga neen ñu bokk réew mi nañ jéem a defar. ma jóge fa borom euh, defar karo yi jaaykatu karo yi. ñoom it occupé voie publique bi def ko ci kaw toiture ba ñun ñëpp ci ci tali la ñu jaar. mais loolu naqare ma trop man daal. ma yaakaar ne xëy na ay élection ñoo tax maire yi du ñu jóg. wala préfet yi duñ ci wax. mais yaakaar naa ne loolu la war a ah mais sinon. mais monsieur Thiam lii kat ah. day am bu élection day jub si mi ngi am bu élection jub siwul ngi am mais c' est continuel moom c' est tout le temps. c' tout le temps c' est kenn comprendre lii lan la. Ah. wax dëgg yàlla on ne peut pas comprendre jël ay camion yu paan ak i oto yu paan rangale ko ci tali ba kenn mënu fa jaar. waaw mais ba pare kenn mais Caaroy Azur boo fa demee ci raay bi mais ay oto ñoo ko rang ba ba ca kaw. billaay fi mu ne nii bu benn camion di jàll oto yëpp ay taxaw wala ñu arrière may ko te ay nit ñoo ko fa sànni ah mais kenn du nga c'est-à-dire nguur gi ñoo amul ñoo jëlul seeni responsabilité parce que boo bëggee gouverner bonne gouvernance sooy wut ku la mere ku la gërëm doo gouverner te tegul ci siraatal mustaqim dëgg rek ku la ci fekk baax na ku la ci fekkul baax na waaye bu fekkee danga nga ragal di wut ko ku la ku la ku la ku la ku la mere yooyu doo avancer c'est ça problème lii kenn xamul lu muy nuru jël ay tali gaar ay oto ñii ñi ay ay fas sax léegi dañ koy yeew ci kaw tali di ko xont mu fay nefere mais Sénégal li fi am fii rek la am mais nag comme nun nun nag mënuñu koo fajan naqari nanu waaye xam nga civil mënta fekk moromam ci ci mbedd mi mu lal ci trottoir mu ni ko di nga ko dindi ñemewuñu ko parce que nous sommes pas assermentés waaye yéen ñi yor intérieur ak yéen ñi yor maire yi xanaa budul yéen xëy na yéen fa ngeen nekk kenn fattu leen ndax maire bi moom koñam kenn du fa def yooyu waaye xanaa ñi ngeen dëkkal seen administré yi xanaa ngeen dimbali leen ñu ñu fittar ci leen bokk ñu nooyi quand alo allo salaamaaleykum. aleykum salaam. sëriñ bi nootu tudd ak foo nuy woowee. Moustapha la koy wax. sëñ Moustapha bisimilah. ñu ngi leen di bu wér. ñoo ngi lay delloo ziar Mouhamadul Moustapha. waaw dama dégg sànq benn soxna wax wax ju solo comme li nga doon wax ni émission yu bari ñi ngi koy def waaye benn intere amu ko ba ñu bari bu ñu xëyee dañuy xalaat ni kan la ñu war a déglu wala kan la ñu war a roy wala ci ñan la ñu war a seet mbooloo mépp wóolu la jël seen i seen yaakaar dénk la mhm. nga toog ni naan tey da nga leen wax mhm. seen roq ya la leen fa naqari ci ay agresseur mhm. walla ndox mu yàquma ma fa ne wala buntu kanaal ya nga xam si dañu koy dindi nga nekk fa di gën a défendre ci ay loo xam ni si dara amu ci mu doonul dëgg te yow nga nekk fa ba mu jaral la di xeex ak waxantelu ñaaw te nga ni ëllëg yaa nekk ci péncum réew mi mhm. loolu lu jaral seetaat la loolu njëkk mhm. ñaaw mhm. beneen bi ci tegu mooy oto yooyu ngay wax léegi rond-point boo gis nu def ko parkinu oto lay doon ni fay jaayee oto te loolu xam nga ni sëriñ bi rafetul jekkut ñetteel ba ci tegu mooy sang bi mhm. jikko yi dafa dem ba xamatunu mhm. ñu baax ñi ak ñu bon ñi mhm. réew mi nag am na ñu baax ndax am na ñu bare jomb nanu lu bare waaye am na ñoo xam ni si jomb nu dara jomb nu dara mooy nit bu la leeree ni yaa ngi toog di wax ay waxtu la ngay wax dara amu ci loolu bare na fi trop ñaareel bi ci tegu koo fi wax dëggum day mer ca loola mu jaral ko lu mën a doon nag waaw àddina nag bu nu bëggee mu dox nu waxante dëgg rekk a koy doxal waxante dëgg googu nag ànd ak jëf te yàlla rekk a tax nanu xool sunu digganteeg sunu boroom li nga wax sànq dafa am solo gis nga li ngay wax bu doon ku taal sa tele dégg fii mhm. kenn ku ne dana toog xoolaat boppam te kenn du ni ko jekk-jekkalal sa bopp waaye dana xam ni jekk-jekkal boppam jekk na ci moom xale mhm. mhm. bi jigéen ñeeg góor ñi dañuy bale meeri jël di bale waaye suba day mel ni kenn jaaru fi woon yii moo fi am kon lépp kenn mënu ko wax waaye daal nanu xoolaat sunu bopp tey xool sunu diggante ak sunu boroom njiit day mën njiit Mm-hmm. njiit du xeex. Mm-hmm. njiit du xuloo buñ la waxee sax loola naqadi ci xoolal ni kat am na ñu ma yaakaar ba naa ko muñ xam nu ma koy gérer. Mm-hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Serigne waaye njiit lu mat njiit ngay wax ku matul njiit moom ku ko jiitalit manqué rek la lay indi waaw ndax njiit du xuloo c'est vrai. wax yenn yi aussi kuy wut baat waru ko wax waaye senegal moom léegi comme nit ñi dañoo nuróo ki golo fokk ñu indi leen ay bukki ñu jiite leen loolu rek la de comme nit ñi jikkooy golo la ñu yor léegi ñi ci ëpp ah wax dëgg yàlla ñu indil leen ay bukki comme ça ñu fal ay bukki waaw ah, loolu rek la waaye bu fekkoonte ni teg nañ ko fi ñu ko war a teg ah xam suñ bopp waaye léegi moom euh, lu ñàkk fayda lan soxla lu amul benn njariñ la ni lan bëgg euh, ay taasukat ak i bandkat ñoo fi siiw ñoo fi am dara sax far léegi daal ku bëgg a yor dara sax faral def lu bon boo nee ci lu bon rek léegi nga waaye ci lu baax moom boo ci nekkee pour nga yor dina jafe lool ndax euh, baax boo ko defee da nga koy booleeg doo sàcc doo fen doo wax loo xamut te yooyu gars yi nee nañ gaawut pour mos dara soo bëgg am na ñoo xam ni fen rek la ñu la des professionnels ci ci ci fen waaye ci fen yooyu nag ci la ñuy amees dara xam naa nag mujj ga laa xamul nu muy demee waaye nag amul njariñ waaw bu fekkee wax boo waxee dëgg mu xañ la dara wax ko rek waaw yàlla mi la ko xañ dina la jox feneen loo xamante ni moo ëpp njariñ lool wax di wax yoo xay gëmoo ko te kenn gëmu ko te du dëgg yàlla nañ ci yàlla musal salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah sëriñ bi noo tudd ak foo nuy woowee Pape Diop Dakar gi laa lay woowee jërëjëf Diop alaaji taal ngol-ngol waaw lii la réew mi manqué wallahi wax nga dëgg parce que télévision yi dañ ciy gis gone goo xam ne ci jàng ci jàng la toll mhm. ñu bàyyi ko muy wax loo xam ne kenn xamut lan la wallahi wax nga dëgg bët bu seen nga déglu émission wala ngay seetaan émission yoo xam ne yow fay télé bi rek ngay bëgg. wallaahi. réew mi man affaire bi fi mu jëm daf maa jaaxal. Mhm. parce que ñii nga xam ne ñoo fi nekk jamono yi ñu leen di jox réew mi. Mhm. ñun jàppoon nañ ne defaru nañ. Mhm. ndax ku judd après l'indépendance. soxna suñu kukk di yeewoo ca biir pale ba. mosuñu ko am. di fa lalub si di julli. waaye li yi ñoom ñëpp suñu pëj neuf lañ. te man li ma gën a jaaxal mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñiy laaj réew mi ñoo yem parce que essence rek moo fi nekk. Mhm. parce que fi mu toll nii boo seetloo kii day jógee ko ci parti bi dem ci parti bi kii jógee ko ci parti bi dem ci ñu di ñu awantoo. Mhm. daanaka ñun bu ñu seetee ba ci biir daanaka fu ñu jëm xamuñu ko. Mhm. parce que kuy wax dëgg ko nii moom ñi ko ñemee dafa ñëw. parce que ñu ëpp doole yëpp dañuy wax pour ku leen jël wala ñuy wax pour ku leen dugal ci wala ñuy wax ku leen neexal. pour ku leen neexal. te loolu du defar. ñi nga xam ne ñoo yëngu télévision yi. Mhm. war na nañuy xoolaat émission yi. Mhm. parce que da nga gis émission boo xam ne boo xoolee la nga koy wax amul bopp amul génn. Mhm. gis koo xam ne dañ koy teg ci télévision du responsable du dara ñu teg ko mu wax loo xam ne kenn xamut lu mu doon. réew mi vraiment boo seetee ba ci biir dafay lay jaaxal. parce que ñi nga xam ne ñoo war a duma duñ duma kenn. ñi nga xam ne ñoo war a yar duñ yar kenn. xoolal bateau la Joola jiraawaale gi ci defoon. bi mu amul benn car rapide ba apprenti na ñu ne lang ci ginnaaw. ah léegi day. <laughs> car booy lang ci ginnaaw ñuy dëkk sa ndigg. léegi day dellu nañ ca ba romb ko daw dawal luñ ko war a mën ñetti weer. déedéet. ñu sànni loola ci àll ba. Mhm. fu giraawaale amee ñu topp di paralel naan accident yi nangam sangam nangam nangam dangay ngay déparé fii man damay voyagé fii ba jaww be. Mhm. oto bi day yéeg soixante dix personnes. Mhm. ci kanam mu taxawal fi dix ci ginnaaw mu taxawal fi dix muy soixante mille. poste bu mu yegg chauffeur bi ne ko jox ñu jox ko ñu dem. Mhm. xam nga ne loolu doxalu réew yow li tax ñu lay jox xam nga lan la. Mhm. doo ko sax xool. waaw ah, jox ko jox ko ñu dem après mu rey leen rek. jox ko ñu dem rek am na ñoo xam ne sax jox ko natt la ñuy wax. waaw jox ko natt bi waaw. <laughs> waaw natt bi ñu dul teggi. waaw waaw. bu ñu la tegee am na man mosuma gis benn magum autorité moo xam ne la mu la mu wax keroog mosuma ko gis ci àddina. Mhm. arrêté nit nit ki arrêté oto oto bi taxaw bi oto bi taxawee mu ne góor gi jox ma. góor gi yëkkati 1000 francs di ko jox ne ko li nga li nga li may laaj de tegoo ko fenn mu ne ko teguma ko fenn maag ngay maag yem eh, mu ne ko eh. seetal yonent bi mu ne ko ndax maag yow bu ñu béyee kenn du ci gis yonent bi salaamun xawla mu ne ko lu tax duñ gis yonent bi mu ne ko yow li ñu lay def loo defoo ko te man 1000 francs deux mille yi ma leen laaj kenn def loowu ma ko kon maag yow ñoo yem kon réew mi fan lay baaxee kenn xamu ko alaaji émission yii dañ ko war a baril te yaatal ko mm-hmm. mais Sénégal ku fi wax dëgg bu nu sañoon tey nga jóge fii. <laughs> maa la wax loolu de. te bëri na loo xam ne nii yow yaa ngi nii ab géwél la ko xam naa la bu baax maa ngi lay seetaan ku suur. de du ma géwél du ma géwél nag benn émission boo xam ne laa yóbbuwoon këwoon. waaw du ma géwél nag du ma géwél. ah pourtant moom laal tegoon. non non non je ne suis pas griot. man maabo la ah, xam nga tu man man waaw maabo sama ndey wuude la sama baay maabo la du ma géwal dëgg yàlla <laughs> waaw benn kii xam nga lépp ci xeetu ñeeña la ah, waaw kay waa waaw ñeeña la dama seetaanam dama seetaanam benn émission boo xam ne que woon mhm. ca laa fonke woon yëf yi ba sañ jonni tey di seetaan émission bi dëgg la dëgg la waaye fii nga jàpp moom bu fi tegg sa tànk nii rek la incha allah wax dëgg moom wax dëgg te yàlla rek tax mhm. émission bi yàlla na ko yàlla saxal ko yàlla yokk sa barke ci barke yonent bi amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf jërëjëf maa ngi ziar nag sunu sunu yenn xarit yoo xamante ni la xam nga émission bi dafa am ñoo xamante ni dañ koo bëgg muy émission démb muy lii may def parce que réew mi comme ni ko sëriñ bi waxee rek bugguñu kuy wax dëgg waaye ñun yàlla dogal na dañ bi nu juddoo ba am ñetti at lan dem daara nii nu mel nii sëriñ ma Samba Sylla ma dëkk kër libaas ñaxal bi ma jàngal ba ma wàcc alxuraan moo ko def ci man mas naa leen a nettali benn anecdote dafa am benn bés ma dugg ci mu may mu may ma miskit ci armoire am armoire bi nag amul woon caabi da koy delloo rek benn bés muy jàpp ci ginnaaw man gisuma ko ma ñëw ubbi armoire bi sàcc miskit mi mais bi ma koy tëj bunt bi ni teel fekk sëriñ bi jàpp na bay ñëw mu ñëw ni ma ni loolu lan la ma ni ko dama doon sàcc miskit mu jël loxoom bu tooy ba teg ko ci sama bopp ni ma boo fenoon ma rey la waaw après nag keroog la ma téyee ni ma àdduna bu mu rëy mukk ci àdduna bu la dara jaaxal ba nga fen bu la ko kenn jaral ndax lépp boo boo waxee dëgg amoo dara waxal dëgg te bañ a am dara mais boo fenee am million bu ëllëgee dëgg dina ñëw def ko muy te du ba du mat dërëm dëgg moom yàlla moo ko moom te it xanaa xamoo ni ñi nga xam ne dañ ko ñemewut wax wala dañoo bokk ci yenn lobi wala nangam ñoo xam waaye man li ma gëm mooy lépp lu ma am tabaraka wa moo ma koy jox sama borom bi ma bind innal humura bi yaddillaahi jàpp naa ne lu ma man ak lu ma am kenn képp moo ko mën a sottal mooy sama borom bi ma bind te tagguwul kenn bi may bind man kooku rek laa ragal boole ko nag di ragal aw nit nag moom wax dëgg yàlla mënuma ko mënuma ko cee boole li ma xam daal moo di wax dëgg ñépp la war amul benn doomu aadama boo xamante ne danga war a nekk ci àdduna di wax loo xam ne yow mi koy wax xam nga ne li ngay wax du dëgg te léegi looloo fi bari gars yi moom fen daanaka sax léegi dañ koo légaliser daal asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah soxna si noo tudd ak foo nuy woowee man Fatou laa tudd maa ngi wootee Sacré Cœur waaw soxna faatu ñoo ngi lay ziar waa yal na yàlla daal ngeen ma àq baal man de bëggoon naa dugg. bisimilah duggal dugg nga. yàgg naa lool. Mhm. bisimilah. léegi. Mhm. maa ngi lay euh, maa ngi rafetlu waxtaan wi. Mhm. Euh, ndaxte environnement ci laay évoluer waaye li nga xam ne moo lay wax rek mooy désordre bi metti na trop ci quartier yi. saleté bi bare na mais je crois que. Euh, ñu waxeeti mhm. euh, chef de quartier yi lañu ñu war a waxal ci loolu mhm. ak maire yi mhm. ndaxte bu ñuy jëloon benn boo xam ne ku ñu gis nga def dara ci mbedd ñi alamaan la kon yaakaar naa ne loolu dina wàññeeku parce que boo demee tey ci dëkk européen yi foo jaar da nga gis suñu mbokku sénégalais yi xam nga waa ji ne ay étranger li ko fi def boo demee tey ji étranger Sénégalais bi ay Sénégalais yu ñu fay ramasse parce que ay dibi ci dibi surtout ci côté wu seen yoon mais police la bala minute police ñoo te duñu tàyyi duñu bàyyi. Mhm. waaw dañu waroon nag def ay police de proximité yoo xam ne. Mhm. danañu jóg di seet fu ñooñu nekk ñu leen di te tere loolu. Mhm. puus-puus yi bare yi ñi leen di tere oto yu màgget yi ñi dugal ci biir koñ yeeg biir trottoir yi yow boo nee bëggee gaare sax doo am foo gaare mhm. yow yu yëpp war nañ wax man je pense que euh, chef de quartier yi ci seen bopp ñoo war a jël pour def loolu mhm. ndaxte euh, ministère de l'intérieur mhm. defe naa ne am nañu leneen lu leen dëkk mais ñu def ay poste de proximité wala ñu def ay gendarmerie yaakaar naa ne euh, affaire boobu dina mën a résoudre bu ko fa nekk jéem ko dindi jéem wax ak ñooñu du sax ne dañuy jël seen ay bagage ak yooyu mais bu ñu xamee ni ñii police ngi ñëw wala gendarmerie ngi ñëw rek kon loolu dana wàññeeku étranger yi dinañ ko bàyyi euh, nationaux yi nga xam ne ñoo fi tam nekk di saltel dëkk dinañ ko bàyyi parce que effectivement seen émission bi c'est super intéressante parce que problème bi dafa nekk loo xam ne seetaan daf ci am kii tamit dañu war a def ay kii de sensibilisation dañuy wax ak nit ñi lii ak lii ngeen war a def yaay yi ci kër yi yar doom yi pour xale yi mën nekk ñoo xam ne tamit ëllëg dinañ xam li ñuy doxale ci biir dëkk bi bu mhm. fekkee yow def état mhm. bu ñëwee def naa non man kii fi la dëkk moo fi def lii ndegam man nag mi fa dëkk dëkkul sama yoon nekku ci man tam danaa defe nu ma neexee mhm. affaire bi warul egg sax ci suuf la war a nekk chef de quartier yi rek tey doyoon nañu ak préfet yi pour ñu mën a ak kii yi ñu koy wax ñi nga xam ne ñoo nekk ci koñ yi nekk ci gox-goxaat yi bala ñuy nekk ci télé bi yow sa émission bii man dama ko ndaxte émission la boo xam ne am na yeneen émission yi 2STV bi bu doon sama sago di leen primé di placé par nii parce tey lii ngay def ni sensibilisation la ndax sa sensibilisation tey ji kii ku ko dégg te nga xam ne yow environnement bu yaakaar naa ne euh, ci di nga wax yow nga ci di nga ci jëf li nga ci war a te bu ñëpp defandoo loolu rek dëkk bi dëkk bi am ordre dëkk bi set parce que yeneen dëkk yi gënuñu ñu mhm. mais ay Gabon ay yii yëpp lu mel ni am fii Sénégal rek comme ni ñu ko waxee Sénégal rek la am parce que lu waay neex def mhm. man je pense que bala ñuy yegg rek toujours ci état damay wax ne ñun nit ci suñu biir gox war nañu góor góorgóorlu am police nag yoo xam ne yow boo gisee loo xam ne nekkul nga dem ca police ba déclaré ko mais lu mel na sacré que par exemple amul police amul gendarmerie dañuy dem ba police jëppal wala ñu dem ba police su euh, euh, Foire mhm. loolu metti na mhm. loolu nag man maa ngi ci woo ñépp ñoo xam ne ñoo dëkk ci gox goxaat yi ku nekk nga bàyyi sa xel ci loolu mbalit nga di ko teel génne bu oto bi ñëwee yóbbu feneen ak feneen loo xam ne yow am nga euh, kiiwu oto bu màgget nga yóbbu ko fourier wala police ci boppam ñëw gën kuy fourrière li nekk ci dëkk bi moom metti na Sénégal sax nit ñi jaaxle nañu maa ngi waaj ñi nag wax dëgg yàlla xëy na am na ñeneen ñu bugg dugg mais daal xëy na dinaa fexewaat duggaat càmm kii ngongol nag bëggoon naa am sa numéro. parce man bul coupé ñu jox la ko boo émission yi ñu léegi ñu jox la sama numéro incha allahu rabbi wax nga dëgg wax dëgg yàlla lii moom senegal rek la am e, li nga wax sànq ni yeneen réew yi gënuñu nu xëy na dañu gën ay njiit wala ñu gën nu farlu ay njiit parce que dama jàpp ni lii sëñ bi wax sànq rek nii bi président Macky Sall faloo nga xam ni il est après les indépendances ñu am une première dame bu nekk musulmane di taxaw ca biir ca biir pale ba jàpp ba set di julli nga xam ni c'est pour la première fois ñu am ko ñëpp amoon amoon yaakaar te yaakaar bi ba léegi nag dañul parce que président bi du moom sax moo war a régler loolu léeg-léeg ma dégg koo xam ni robinom day paan mu naan président Macky Sall la ñuy interpeller non non pour ce problème là le président de la République moo mais on interpelle le ministre de l'intérieur ak le ministre des forces armées parce que ñooñu ñoo war a nag dëggal seen bopp parce que lii am ci mbedd yi mbedd Sénégal yi ñu gaare ko ay oto ba mu fees di ci jaay caaf di ci lal ay taabal di ci lal ay ay lu kenn xamul dëgg-dëgg loolu alkaati rek borom der rek takk der rek moo ko fa mën a jëlee waaye ñun citoyen mun nañ ko naqarlu waaye foofu lañ mën a yem waaw ñun nag waxuñu pour naan dañuy interpeller président non non non parce que président on le respecte affaire mbalit ak désordre bu am ci mbedd du ñu ci interpeller président am na ñu président teg pour ñu régler loolu que chaque ministre def li ñu ko sant ministre de l'intérieur dañ ko wax mu defar dëkk bi assainir ko c'est son rôle moom moo ko war a def sans attendre euh, euh que président naan ko defal lii wala defal laa asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam. soxna si noo tudd ak foo nii woowee. maa ngi tudd Adja madame Ndiaye. madame di wootee waaw madame Ndiaye bismillah. waaw maa ngi rafetlu seen émission bi. Mhm. munuma musuma woote sax télé. Mhm. bon mais dama tëdd bii rek doon déglu kàddu diine yi. Mhm. teewu yem ci émission bi. ma dégg déglu émission bi muy wax daal sama mm-hmm. Mm-hmm. ndax man lii yàgg na dëkk bi amoo foo ko mm-hmm. sénégalais indiscipliné nañu xamadi nañu siriyaar nañu jubadi nañu te gis nga loolu yëpp soo jógee nag ñu naan état état état. gis nga ko bañ. c'est le président Macky Sall. Mhm. moom dafa am li mu war a. xam nga lan moo yàq Sénégal yi. Mhm. ku fi nekk am nga ndey. Mhm. ku fi nekk am nga ndey. yaa ngi ca sëriñ sax yàlla baal ci jégg ma ñun ñëpp am nañ sëriñ ñëpp la ñu bëgg sëriñ ñëpp la ñu bëgg. mais sëriñ yi. daa bëgg ñu génn ci affaire gouvernement. Mhm. ak affaire yar doom yi dem gis nga doom suñu doom yii. Mhm. wallahi la azim buñ ñu sëriñ si bàyyiwul ñu dimbal Macky Sall mi dimbale ñu yaral suñu doom yii. Mhm. seen ëllëg dina metti dëgg la. man sëriñ si rek laay laay la laay ñaan di laay war a suuli. nañ bàyyi ñu yar xam nga Sénégal ñemewul kaso. Sénégal ñemewul dóor. Sénégal. kaso rek la ragal. waaw waaw. xoolal Kaolack fan yee. Hmm. ñu ngi fay aay ñu ngi fa ne nañ ñu sal casque jakarta yi mais bi force bi jógee. Hmm. jàpp xale yi jël ñenn ñi tëj leen ci kaso bi ñii ñu jàpp leen xamuñu élève xamuñu kenn. Hmm. gis nga léegi ñëppay sol casque. ñëppay sol casque. Ah, léegi nag dama bëgg billaahi wa rasuuli Macky Sall lu mu seq ak sëriñ si na ko seq ak sëriñ si. gis nga nañu jël xale yi ku ku ku ku ku ku defati lu bon rey nit nañ la rey. Mhm. wala teg kaso de nañ la rey. Mhm. ku jaar ci suuf yi ci ci ci fii ni ñu koy defaree padois ñu ngi ci def gris yi def ci barrière yi. Mhm. xam nga fi ñuy jaar. ci suufu barrière yi la ñuy jaar. la ilaha illallah. wallahi lazim ci suufu barrière yi la ñuy jaar. man dama yéemu sax ci yàlla. <laughs> léegi kay ay xar la nu yor citoyen xar la ñu. non kenn xamul lii nan la kenn xamul lu nga gis nga nawet bii bu ñëwatee. gis nga caaroy gii. Uh-huh. sama mbokki kaw kaw yii. Uh-huh. jóge ci àll ba kaw la kenn nekkatu fa. Uh-huh. daara jolof kenn nekkatu fa. ndar kenn nekkatu fa. ñëpp ñu ngi ñëw centralisé wu Dakar fi amul fi benn yore ay saret yoo xamante ne bi da ngay dawal ñu lay mbëkk. nga wax ñu lay cax loxo. fooy constat li lillaay war a suuli gis nga ku jaar si ci barrière yii nañu jël ay nit ñoo xamante police police de proximité lañ koy wax xaw nañ leen jël ñu taxaw fii nii di ci euh, kii yoonu péage beeg yii nii jërëjëf soxna si parce que waxtu wi nag euh, jot na Ah. billaay na ma waaj jox numéro am ci suuf. ndaxte moom tamit bu ñu joxee numéro am. waaw buñ ko woowee nañuy jël nag loolu rek mooy seen problème yéen it. déedéet man moom ku ma woo dinaa jël man dongab daara laa. man dëkk déedéet am lu man moom man moom man moom foo ma woo bu soobee yàlla di nga ma jot. parce que man du ma fay sama porte bu ma nelawul daal dinaa wuyu waaw bu ma nelawul moom dinaa wuyu incha allahu boo coupé ñu jox la sama numéro man yooyu bu ma gisee ku ni mel sax dama naan kii lan la parce que nit di la woo kenn mënu la jot nga yor portable bool jox sa numéro kenn comme kenn munu laa jot léeg-léeg gis benn ministre mu naan non non affaire yi ñëpp a jàpp nag ñëpp a jàpp gars yi wut dépense ci mbedd mi sax ñoo leen gën a jàpp waaw parce que vraiment nag euh, de leen wuyu wuyu dafa baax joxe sa numéro ba noppi ñu lay woo wuyuwuloo c'est pas logique kon nag ñooñ bokkunu ci loolu ñun ku nu woo parce que man li ma jàpp mooy képp ku ma woo parce que li may wax fii lu ci bari ay nit laay woo wala ñu woo ma wax ma ko du sama xam-xam de xelum képp laa fii indi di ko waxtaane kon nag bu ma bu ma wuyuwul rek man maay perte moo tax damay wuyu ku ma woo rek ma jël incha allahu rabbi su may wuyu sax du ma xam ba numéro moo may woo parce que man nëbbutuwuma waaw yoralu ma kenn ñaari salaamaaleykum gars yi nga xam ne dañ leen di woo du ñu wuyu en général koo gis muy du wuyu ak ay sensé numéro ab njublang la waaw ñun nag numéro ba nu yoroon ba nu juddoo ba léegi ba nu ba nu amee numéro ba léegi moom rek la nu yor te ku nu woo dinañ la wuyu bu soobee yàlla léegi nag yëg si nañu fi nga xamante ni eh, fi lan war a téye yëf yi ba suba ñuy sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di nuyu suñu xarit euh, Thierno Correa nekk ci Abidjan Côte d'Ivoire di nuyu suma beneen xarit Serigne Bachirou di nuyu nag suñu njaatige suñu xarit suñu sponsor di Aliou Lo bu lobu Maam Jaara parce que Aliou Lo moom li ma koy ñaanal rek mooy diggante Kër Njaay ak ta ak Taliba di juróom benn kilomètre yal na la yàlla dimbali ba indil la fa aw yoon wu baax ndax Kër Njaay dem fa yu jafe na parce que suuf sa metti na te yow lafa état bi war a def lépp di centre de santé di château d'eau di juma di defari sëkk di tabax école lépp tabaar fakàl la macha allah ànd nga ak say bokk defar ko fa kon état bi war nañoo def effort nag defaral la yoon parce que loolu day décourager doomu aadama doomu aadama bu investir ay millions loo xam ne état moo war a defar centre de santé état moo war a jënd euh, dégg nga euh, ambulance état moo war a tabax école état moo war a defar château d'eau loolu nag état bi la mu fa waroon a def lépp Aliou Lo defar na defaral na ko boppam mais la moindre des choses ngeen defaral ko boog yoon parce que léeg-léeg ngeen defaral yoon ñoo xam ne defuñu dara la ne seen dëkk sax yéen a ko fa def mais parce que peut-être dañoo influent wala da leen ñemewul ngeen dem defaral leen yoon kii def développement bu toll noonu école boo xam ne 313 élèves xaw ma 30 ñoo fay jànge moo leen di dundal yor leen defar fa ndox defar fa centre de santé jënd ambulance bu bees pour yóbbu fa te dëkk ba kenn mënu faa dem ndax aw yoon mais loolu vraiment ça décourage les gens ñun suñuy xeex pour nit ñi dellu fa ñu dëkk defar ko du pour li ah. du pour ngeen di dem di defaral tali ñoo xam ne defaruluñ dara Sénégal bàyyi ñi nga xamante ne dañoo liggéey seen réew defal dara seen réew lu toll ni centre de santé nga def fa plus de cent millions te dëkk ba kenn mënu faa dem ndax suuf su bari loolu wax dëgg yàlla day yàq suñu liggéey ñoo ngi leen di ñaan yéen ñi yor nguur gi ngeen seetlu nag dëkk yi nga xam ne ñu baax dañ faa nekk di fa investir ngeen jàppale leen ci parce que yoo loolu ñu fay def yéen la waroon waaw kon nag ñoo ngi leen di jégalu ah, wax nag ñu waxta ni waxtaan tuddul waxtaan wax taaj la loo taaj nag kii bëgg dana jël kii bëggul bàyyi fa waaye lépp lu ñu wax bu déranger nit noo ngi jégalu lu ñu wax mu neex nit ñoo ngi sant sunu borom parce que nag wax mu neex ñépp dama jàpp ni am njublang moo ko moom kon nag asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf salaamu alayka ya ya rasul allah